di am ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korité 23 sawal bu bis bi masaa jub nag daanañu ko waajale jataay xam-xam jataay waxtaan ngir fàttaliku ay jaar-jaaram fàttaliku it ay jikkoom ngir jàng ci ngir roye ci ngir tabaxa ci sunu dund àdduna ak sunu dund sunu jagu ëllëg euh, nu koy def nag di ko ànd yenn di dem ci kilifa yi nga xam ne yàlla defoon na ñu amoon ak moom akuk jonjoo amit ak amoon ak moom it ak jaxasoo di ay bokk ci moom itam euh, nu ñëw nag ànd ko commission culturelle bi nu ko baaxoo àndal ci njiital sëriñ Abdoul Ahad Jaxate nu ànd ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ Thierno Bousso moom sëriñ Afiya Bousso ànd itam ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam Asta moom sëriñ Baye sëriñ Bousso ak yeneen Abdul Ahad yi nga xam ne ñu ngi leen yebal ci yeneen i liggéey ñu nekk ca ni ki sëriñ Abdul Ahad Lo sëriñ Abdul Ahad Ñang ak sëriñ Abdul Ahad ya ci des yëpp tabaarakallah sëriñ si di nag joxoon nu ndigal ci nu taxawee liggéey boobu at mu jot nu koy waajal ci xam-xam ci berndeg ruux loolu waral nag nu koy doxale nii nu ñëw nag tey ci kër goo xam ne kër ga ak kër sëñ Abdul Ahad genn kër la muy kër sëriñ Abdul Xaadir ku tudd sëriñ Abdul tudd sëriñ Abdul Xaadir mu di genn kër ñoom ñaar seen diggante di diggante bu euh, bu yéeme boo xam ne mënees na cee jëlee bind yu baree baree bari nu ñëw tey ci kenn ci njaboot gi muy sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Xaadir di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool tam ànd ko wér di ko murid yi di bëggee ngir yu baree baree bari ne ca la ko war macha allah waaye itam bokk ci yaakaar yi yàlla bu yaakaar yi murid yi tas ci moom. yàlla bu yaakaari sëriñ bi it tas ci moom yàlla bu yaakaaram it tas ci taalibe yi di koo xam ne itam jataayam foo ko fekk waxtaane sëriñ bi waxtaane yoon wi waxtaane lislaam ne ci njub te di ca nekkaloo nit ñi doon itam ko amoon ak jaxasoo ak doomi eh, njabootuk sëriñ bi yëpp waaye itam amoon ak jaxasoo ak sëriñ Abdul Ahad mu daan ko nettali ay xam-xam ay xikma yu am solo yoo xam ne bu mu cee yëkkati rek matas na ko defu bind tey ci Cheikh Mouhamadul Moustapha moom la du ñëw ngir taataan ay kàddu yu bàyyi ko ci moom kon mbokk yi dañuy daal di tàmbaleeg yéen jataay bi sëriñ bi noo ngi lay ziyaara di jéglu jataay bi di bëgg ànd ak yow rek ci waxtaan yu gàtt yu tënku rek ndax jot gi bariwut ngir fàttaliku sa xarit ba sa soppi ba sa wayjur wa sëriñ Abdul Ahad di la jot li it nuyoo sëriñ Sidi sa xarit sa wóllëre nu ñëw rek ngir bëggoon a fàttali ko dara ci sëriñ Abdou Lahad euh, diggam ak njabootu sëriñ Touba gi rafetaayu jëflante boobe waaye itam nag diggam ak sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy sa jur wa loolu la nu bëggoon a tàmbalee jataay bi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mboole mbokki jullit yëpp di nuyu mboolem mbokki taalibi yëpp. di njiital ci siyaar bi sëñ Sidi Mbacke mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke di ko siyaare di siyaare njabootu sëñ Abdoul Ahad gépp naka noonu di siyaare xalifatul am li taifatil muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéenay teew fii ci sunu kanam ak ñi ñu seetaan ñëpp di leen siyaare ci bis bu màgg bi nga xam ne moom lañ bëgg jëm muy bisu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke doonoon jàmbaari lislaam waaye nekk jàmbaari yoonu murit nekk jàmbaari réew mi it li nga wax ne nag moom ngeen di bëgg ñu waxtaana leen ci mooy diggante Cheikh Abdoul Ahad ak njabootu Sëñ ñu tënk ci tuuti rek ndax loolu loolu loolu na la wax loolu doy na waxtaan ak diggante Sëñ Abdoul Ahad ak Sëñ Abdoul Xaadir Sëñ Abdoul Sëñ Touba moom doonoon na jëmm joo xam ne ba mu jógee rek sëñ bi lay wut lim jàpp ne ay atam mayu ko ci digganteem ak sëñ bi mu fas yéene ko dabu ci njabootu ko sëñ bi loolu ci moom laa ko dégg <laughs> mu fas yéene nag waa kër sëñ bi ñëpp mu def leenu sëriñ tàmbalee ci sëñ Mourou Moustapha tàmbalee ci Cheikh Modou Fadel ba ci Cheikh Modou Basir ba ci Cheikh Modou Lamine Bara ku ne xamoon na seen diggante moom nga wàcc ba ci ñii nga xam ne moo leen mag sax muy wut sëñ bi nag ci ñoom ñoom ñëpp kon yéen mu am xalaaqa watiida bayna bayna baynahu wa baynahum ku ne am na relation bu dëgër ci digganteem ak ñoom mu fonkoon leen ñoom ñëpp ñii ku ci mag ku ci ne defoon nga ko ndaw di ko yónni ci lu bari di ko lijjanti loo lu bari muy sëñ Wër Musaa ak sëñ Fallu mu bëgg leen lool ku ne it mu bëgg sa ndam nga xam ne ku ne ba nga toogee luy sa ndam rek moom la def muy ittee lu mu jàpp ne it lu lu lu ci bëgg a dugg la te waru caa dugg it dana ñëw leeral la ko noonu la bindoo woon ci digganteem ak sëñ Mourou Moussa noonu la woon digganteem ak sëñ Fallou ñu mayoon ko ko bu baax nag booba ay atam bareewut ni ni mu war a baree waaye sëñ Mourou Moussa mi fi jiitu sax nga ay atam ca la gën a néewee yow sëñ Mourou Moussa koo mayoon bu baax a mu doxee ca mu nag mu wéy ca ñoom ñëpp am mu waaye yàlla bindee ko nag mu doon ko woyof ku amuk taalibe ba kum gis ku ne mi ngi jiima wut sëñ bi ci te bu la gisee jàpp na ne sëñ bi la gis ba la tax la nam doon wuti ci sëñ bi rek nii lay wuti ci yow. boo ko fekk see na na nam nam doon nam doon wuti sëñ bi ci ci yow it noonu la noonu la koy defee bu la fekk see it noonu la koy defee mu doon koo xam ne ñoom ñëpp la amal ak xaritoo ñoom ñëpp la amal ak ak rafetoo sëñ baaram Mbàkke mii sax xaritam moon lool waaw mel na moo carte moom sëñ Abdoulaye wax ne nee na ma 1929 la ma ko sëñ baar laa ko fataw mag sëñ baar waaw ah. kon ko lool wax jataay bu waxi sëñ baara waxi baatin yu bari kon noonu la ko yàlla bindee woon gis nga it ki sëñ baara ki mu ko tuddee ni mu daan kenn moo mag ca turando kon noonu la meloon ci digganteem ak waa kër sëñ Tuubaa ñëpp digganteem ak sëñ Abdul Xaadir mi ngay laaj nag moom lim ci daa wax rek moo tënk diggante bi da daa wax ne sama diggante ak sëñ Abdou Khadir gopp ak alléer la muñ dajeewut mbayeef du mën a am tax na mooy kilifa ak sëñ Abdou waaye du def dara lu mu loo xam ne nar na ko suba te sëñ Abdou Khadir yéegu ko démb wala bëkk démb si ba mu ko xalaatee rek loola fasaasa lay daal yi ba mu koy man mu ñëwal boppam wala mu seet ndaw la ko doy mu ñëwal ne ko demal yëgal ma ko nanga te loola it xewu ci dara maa ngi fàttali ko bi ñuy defar jumaa ji rek bi ñuy waaje a natt barab bi rek ba mu damaa daal di woo ne ma demal na sëñ Abdou bu subaa ngi danaa natt lu barabu suñ mag bi ndax daan naa ko nag waaye damay bañ ay natt nit nit nit tàmbali fa di natt ay nit dem fa ne sëñ Abdou gis naa ñu natt jumaa ji te du mën a wax ni yëg naa ko <laughs> ngaan xewu ci dara noonu la doon def ci def kon yàlla may na ko noonu la rafetale woon diggante mag rakkam yëpp nag waaye sëñ Abdou Khadir Mbakke moom diggante mag moom daawut yendoo dara daal wala mu fanaanoo dara te te te du sëñ Abdou Khadir daa xam loola ba noppi ku ca topp ku ca war a topp nag topp ca noonu la doon defante moom fonk lool fu masa teew rek ba ma ko xamee rek ma sama digg mu naan ba ma ko xamee rek fu ba ma ba ñuy ndaw ma xam ko rek julli ko jot fu ma ko fekk na ma ko wax yaay yaay jiite <laughs> la ko bëggee noonu la ko fonke woon te ba mu ko gane jee kàbb it ci 1957 boobee nga xam ne sëñ Mbay Ngawam sëñ Fallu mi la sëñ Abdu Xaadir àndaloon booba it def ko wax ne ko ba mu ko ganalee sonn ci ngan nga ba ngan nga àgg dana ko lenn képp laa soxla nga seedeel ma ne sa sa taalibi bàyyi laa ak bëggam sëñ rek la lool di seere ak mën a wutam ci sëñ tubaa te xam ne sëñ bi moom waxtu wu ne ma nga yokk ci yàlla kon kuy wut ci moom ku ne war taxaw mu déggee ko noonu xam ko xamee ko noonu xam ne lim daa wax rek am murit bu dëpp dëpp rek ak kuy wuti sëñ bi dëpp rek moo bon ci yow ndax boo dëppee rek dëppoo sa ndab waaye fii yaa ngi na nga wut rek yaa ngi yanu nda ndab lii mën na yàq sun borom mën na koy gën a yàqali ndox mi gën a sotti ko waaye boo dëppee wala nga taxaw nag fam nga ndab li sotti kooku du du mën a yokk loolu li ci ko diggee woon kon noonu la ko yàlla melaloon Sëñ Abdou Khadre bëgg ko lool mooy du génn dëkk bi wala mu nar dara te yónniwu la nee la demal na sëñ Abdoulaye danaa fa ñëw bu waxtu sàngam ñëw tàggoo ko ba jox ci jot ci ndigalam fu mu mën a dem bu dana ko tàggu bu ñibbisee dana ko dana ko nuyu ji loolu man dox naa ci ay ati at <laughs> yoo kon kon xam naa ci lu wér euh, nga xam ne mu du def dara loo ko mën a wax loo mën a wax it boo ko waxee mu ne la euh, ndax wax nga ko sëñ bi <laughs> noonu la ko daal boo ko boo boo ko nee waaw mu ne lu mu la wax mu ne la mu rek la la nga defal noonu kon noonu la yàlla rafetale woon seen diggante ba nga xam ne ku ne xam na ne lépp dafa rafet lépp dafa da dafa lépp am njàngale la moo xam ne diggante bu war a rafet sax buñ ca royee ay bokk yu ne rek buñ ca royee diggante ba rafet waaw ndax loolu ngeen di wax ne am njàngale la seen dund gi seen dund gi loo ca roy lu néew néew doo mën a jot ci ñoom waaye loo ca roy rek danga nga mën a ànd moom nag ku tabe woon ci darajaam la moom suñu blaat ndax ku ne ku ne na nga féete kaw moom waaw yàlla may na ko lool waaw yàlla may na ko woyof boobu kon nag yàlla na nu dimbali ci darajaam kon nag moom li li ko sëñ Njaay gi de waxoon rek topp mu eh, njiit lu amut ki ñaan ak topp topp mu am bëggul àddina moom la ñu yàlla xëyoo ci yéen ñaar waaw ak topp mu amut amut njiit lu ak topp mu bëggul àddina sëñ Njaay gi rek ko waxoon sëñ Abdou Xaadir sëñ Abdou Xaadir ne ko ah waaw si ki ñaan moom nga wax de ku mu nekk ci yow doo defare doo defaru bëgg àddina it day def boo ko am boo ko xasee def duto am jàmm te jàmm boo ko amul doo ko mën a jox kenn <laughs> sëñ Abdou Khadre rek ko firee noonu bokk suñu <laughs> kon nag loolu mooy diggante bi te kooku tënk na diggi seen diggante bi waaw ku xel la <laughs> jërëjëf Mbacke di bëgg tey jéggalu jataay bi waaw moom de xam naa euh, sa digganteek moom ginnaaw bi nu jógeen jógee ci digganteem ak sëñ Abdou Khadre Euh, sa jataay ak moom ak yoo fàttaliku ci yam la daan wax. Euh, sëñ Abdou Khadre diggante bi moom diggante boobu rek mooy mooy diggante bi ndax sëñ Abdou Khadre moom bu soxlaa sëñ Abdou Khadre man lay yónni sëñ Abdou Khadre bu soxlaa ci moom man lay yónni loolu la waral bët bu set danañ toog danañ toog ay yoon bu nee belaal yi dana ma jël si lu ay yoon euh, léeg-léeg it ma toog moom ñetti waxtu ñun ñaar dong ba tax na xam naa ci moom lu bari nag. ku ku waaye li ma xam ci moom daal mooy ku doyloo woon sëñ Tuubaa ku bëgg sëñ Tuubaa ku ko koo xam ne da koo gontiwu ko da koo xëyee waaw daa xëyee bëgg sëñ bi rek loolu laa xam ci moom te it ku bëgg lépp mu yem ci sëñ Tuubaa ndax maa ngi fàttali Mamadou Ali mi ñuy wax kësis kalaay <laughs> ba fi ñëwee ba mu ko nuyoo ba noppi dane ko demal bax daal nuyu ji sëñ Abdou Khadir mu ñëw ba noppi mu yendoo ko ba noppi nag ne ko Mamadou Ali ne ko damaa bëgg ma yi yi ngeen am yëpp nga wax ma ko bu ma dee tamwil ko foros yi ngeen am daal ma financé leen ko waaw mo sëñ li nga wax baax na li bëgg nañ ci tànk yi nga ñëw fii waaye nag kër gi daa mbañ mu ne ko mu ne ko luy mbañ mi mu ne ko tàllal loxo ku dul yàlla day na rek ko dañuy bañ ma wax ne sëñ bi du ko nangu te <laughs> loolu moo ma ko nettali moom it ndax ca bis ma ko nettali ndax maa doon dox jigéen bi naa ko kat loolu moom bayo nga ndax kër gi daam ma te borom du ko du nangu tàlla loxo kur yàlla boo gisee yadi yadi musqadamtul Mustafa boo boo gisee eh, yadi li mu wax neen karimin ak maddu yëdd yii li xëy na sil jëlaale yeeg yëpp la loola ko waral <laughs> waaw kon kon xekkamam yëpp noonu la lay noonu la noonu la lay gaaw a jariñe boo ko toppatoo masaba di gin mu ne ci xekkam yi nga ah, mun yaayil si na amunu taqullaha wa kunu ma'a saadiqina boo gisee dëgg neex ma dëgg ku dëgg yi neex ma bakkaar bu mu mën a doon am na fen ndax lépp loo nekk te waroo caa nekk rek buñ la gisee weddi ko ngay njëkk a def am na fen waaw su boo dëggoo nag loolu lépp da nga ci daal di génn moo tax yàlla bëgg ku dëggu waaye bëgg ku ànd ak ñu dëggu moo tax mu ne yaay lu si ne amoon taqullaaha wa koonoo ma saadiqin loolu xikam la boo xam ne ñëpp mën nañ cee jëriñ waaw daane boobu war maa moom ñu wëndeelu def ci corniche bi ba dëpp nag jaare nii jaare ci tëriñ jóge bi mu ne waaye fii moom nañ jaare ci godron bi bàcc ne ko waaw yoonu njuga bi mu ne adduna ah, ki nag ndeke loolu am jàngale la adduna di ndeke ku fi ku fi rek boo fi jaaree ba jàll war nañoo xam ne jaaroon nga fi njuga di ba adduna tukki ku jaarati fii rek ñu ne tëriñ daal xam ne jaaroon na ci adduna te def na fi dara <laughs> daal ne àddina loolu rek a am solo ndax kenn dëkku fi nanguwut kenn sax fi waaye nag boo boo boo xamee ne si saa boo ku fi jaarate nag ñëw xam ne jaaroon nga fi xamal yàlla war ngaa sant yàlla waaw waaw waaw waaw da ko wax ne ko man de xawma ni ñuy yore nguur ndax jànguma loolu waaye nag ni ñuy yore kër ak ak ni ñuy yore dëkk de xam naa ko moom Abdou jëf ne ko déglu ko mu ne ko mu ne ko ak ni ñuy yorew nit waaw loolu la ko ni ñuy yorew nit di ko yoree kër di ko yorew dëkk de moom xam naa ko Abdou Diouf ne ko ñoo aw nit mooy am réew di <laughs> mu ne ko mu ne ko mu ne mu ne ko da nangoo sonn nangoo wuti bu ñëwee nga teg ko ci ëtt ba te nga nangu caa gën a tóol borom borom kër bu koy def dangay nga jógee kër borom dëkk bu ko def da nga dugg da nga borom nit ñu koy def da nga jubóog nit ñi <laughs> mu ne ko mu ne ko mu ne ko ku ko ku ko def te yorum réew da nga jubóog waa réew mi Abdou Diouf tag tag ca loolu ne ko sëñ bi loolu loolu mënees na ko jàngale ci école yi <laughs> kër kër diine ki moom moom mooy da leen a bokkoo woon ñoom ñëpp fonk leen ñi ci mat a seeti ñëpp taalal na otom boppam seeti leen fekk leen fañ ne gis ngeen ngan ngi mujj gane ci sëñ Abdou Assis rek yegg yeggiwut noonu ku ci ne moom fexe ba kumpa du am sa dig sa digganteeg moom luy sa itte mu wax la ne la luy sa itte naa ko yëg loo ne naa ko yëg ñoom ñëpp bu ku ci amu xew mu fas yéene ne la jàpp naa ne xew yi man la war la ca war lépp mu mu mu mu ci teraanga mu fab ko ne la indi la ko noonu loon defal këri diini yëpp yëpp yëpp yëpp boo boole koog nag nga yëg ni def na leen boppam waaw yàlla may na ko ci ñoom ñépp ku ci ne mu ñëwee dana la wan ak nawloo wan lak fonkeel sa ñor ko te loolu koo ko defal ngeen daal di ngeen daal di am jàmm waaw loolu noonu la doon deflante ak ñoom ñëpp kër diini yëpp la amal la amal ñoom ñëpp la jàmmool ñoom moo tax da cee bari xer gis nga sëñ Abdou Assis mi fi mujj mii rek mi ñu tuddee mu mag mi mi ñuy wax al amin mooy xaritamoon lool xaritam Moustapha Cissé mi xaritam woon lool danaa waxtaan ak ñoom lu yàgg sax toog ñoom di waxtaan ak ñoom yàgg ci ci wàllu adduna géeg lépp <laughs> war may dëkk bi ah waaw waaw loolu ñoroon lool ma ne war may dëkk bi ki xam nga moom ni ci doon doxale mooy mooy mooy mooy itteem ji gën a kawe himmatuhul oliya mooy mooy dëkk bi ak war ma ji ñu war a jox dëkk bi war ko jox pegg sëñ bi waaw loolu moom da ko ñoroon lool te eh, ab liggéey boppam la moo mm. xam ne na muy demee des ko du mën a wax ci rajo waaye waaye waaye ab liggéey boppam la daal ab liggéey ab liggéey boppam ab liggéey boppam la bu ko doon liggéey loo rek waaw <laughs> mu ci daa wax rek fexe ba yor ji koy ëkk rek ba ngelaw da la yóbbaale fexe ba bañ a yor melaw xob mm. neena na suñ bee ko daa wax sax fexe ba yor sa pas-pasit mm. nga denc ko sa róog seen nee bi loolu la loolu koo def ngelaw doo yóbbaale ak boo mel ni ak ngelaw lu ngelaw li bari bari xaasifatu bi lu mu bari bari du la yóbbaale sawa suñuy sawaabit suñ diggante ak sëñ ak suñu sawaabit ci yoon wi nag nit ëkk la war a mel dara waru ko mën a yëngal dara waru ko mën a yóbbaale roog mooy bañ bi gën a sori <laughs> fii <laughs> ba noppi ñëpp <laughs> kon nag na suñ liimaan ak suñ suñ suñ diggante ak suñ Tuubaa ak suñ pas sëñ bi foof lañ ko war a ak suñ liimaan suñ diggante suñ borom waaw foofu lañ ko war a nëbb ci ci fii ci xaddu alayha bi nawaajis googu ñu wax <laughs> lañ ko mag ñi daa wax <laughs> boo ko dee dara du mën rot waaw fi kay mooy roy ci jikkoom rek roy ci nim nim nim bëggee woon sëñ tubaa roy ci nim ci ngëbe woon roy ci fulla jim ci amoon roy ci euh, tuubaa gi euh, ni ko defoon ku ne xam nga ne ko defoon moom ñëpp xam nañ ko ni mu ko defoon loo ca mën nga def ko roy ci nag roy ci ci euh, yow ci sa boppit nga roy ci nag noonu mu mel ci digganteem bokk yi mu bokkal lislam jëpp bo yor ko mel ko diggante mu ay bokki boppam nga roy ci yewit sa sa diggante say bokk bu ko defee bu ñu ko defee mucc tamax bépp daal defaru <laughs> mucc mucc tamax bépp day daal defaru loolu bu ko ci royee leen jàmbat li ngeen li ngeen doon jàmbat ak ak amut nag amut soxor bi naq si ci wenn yoon ci ci diggante ci buy waxtaan sëñ Tuubaa <laughs> mooy li ma doon wax léegi de <laughs> ci kaw ñi la jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy jataay bi nga xam ne moom la àndoon ak yéen doon leen ko jëlal fii ci kër sëriñ Moustapha Mbacké moom sëriñ Abdoul Khadir yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko àggaleel ko yéenam ci liggéey bi muy liggéey sëriñ Touba eh, di ko waajalee bisub màggalu sëriñ Abdoul Ahad bii di ñëw di 23 sowal di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru korite nu fas ko yéene ànd ak yenn nu waajal ko ci njàngum alquran ak xasida ak salaatu ak ay ñaan yu waaye mën a defal sëriñ Abdou Lahad di ñaanal nag sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ne moo ko fi nekkal di nu liggéey loo liggéey bii euh, yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko àggale mboolem yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Abdou Lahad di sant bu baax mbokk yi lii mooy waxtaan wi nga xam ne àndoon nañ ko commission culturelle bi nga xam ne muy kuréel gi sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad tànn ngir liggéeyal sëriñ Abdou Lahad ci wàllu xam-xam sëriñ Abdou jaxate jiite ko moom sëriñ tindoo di